mën nañ ci roy ci moom ndax exemple la dafa irréprochable boo déggee sax ancien président bu nekk fële ci Reims doon na wax loolu ne Edouard Mendy moom joueur bu professionnel la liggéey boobu mu def nag ak mentalité bi mu am gis ngeen ne def na 6 clean sheet maanaam toog na 6 match encaissé wu benn but li muy def nii nag yombul benn yoon ndax nga fekk gardien bu xamante ne quatre millions d'euros lañ ko jëndee mu nekk xale bu naw nga am pression ñu lay xaar nga tane nga def ay yu nga mental bi pour def ko boo liiree sax si taskati yi gardien bu Chelsea Peter Cech wax ne na dafa yàgg Edouard Mendy waral moom Lampard Lampard ci conférence de presse ndax moom All Black bi de Madrid bëggoon jënd waaye équipe madrilène bi millions d'euros donc bu ñu Edouard Mendy somme bu gën a yem donte nag xaalis la ñu am satisfaction benn bi li ñu mel nak Edouard Mendy mo liggéey woné fulla ak fayda ba ñëpp respecté ko waral buñu ñu image muy kontante ak ay anciens joueurs ñu am mbégte gis ko dañu xamné ki bu démé ba yegg fi liggéey fulla ak fayda moko ko ko may donc mbokk yi comme d'habitude wax leen seen xalaat ak seen gis-gis di leen jaajëfal di wax ba beneen su seen